jàngati moom man boo ma naan ma def jàngati day yomb si man parce que dafa naan je suis le premier responsable politique du département de Thiès bu tenir assemblée générale le 27 février wax d'une manière claire que Idrissa Seck va perdre département fi ma ko tegoon lu yomb la parce que man yàlla dafa def ma bokkoon si ñi nga xam ni dama amoon list départementale ma ni woon à l'époque li APR am Idriss am ko man ma am ko génnoon troisième au niveau départemental sama ay yeneen naataangoo maire ñëw fekk si ñu bu nu boolee loolu mathématiquement effectivement dama ko war a baax loolu benn la ñaareel ba ma ni woon ma jàpp ni Idriss Seck nit ñi ñoo ko bëgg mais il n'est pas politicien te waxoon naa ko sama biir saal ni ko Idriss mun ma amoon ko tu ne peux pas devenir président de la République entre deux avions Dakar et Paris mun ma loolu lu mu signifié mën ko doo seeti nit ñi yëgoo nit ñi doo dem fenn ce jour là mu répondre ma ni ma parce que je suis cible de l' état état bi man la ñu topp man la ñu sonal waaye quand je ferai le pays je vais le faire avec toi man mii toog la waxoon loolu tey man lay accuser ni Macky Sall daf maa jënd ma bëgg a yëgal ko ni ko man du ma ku ñuy jënd si presse laay waxee mosuma laal xaalisu politique te duma ko laal ñaanuma yàlla aussi laal ko dans ma j'étais reçu par le maître Abdoulaye Wade en tant que président booba nekkuma si partem ba ma fay jóge damaa ñaan yàlla ni bi ma fay jóge yàlla bu ma jox dara ba ma fay jóge joxuma dara mosuma laal xaalisu Macky mosuma laal xaalisam moom mosuma laal xaalis politicien foo faut qu'on donc loolu laay dund dama ni bi may def politique je le fais autrement je fais la politique autrement politique boo xam dama ko base si ñeent fànn diine defante nawle ngor ak kóllëre loolu laay defee politique raison pour laquelle kenn mënumaa jënd si politique mësuma laal xaalisu politique ñaanuma yàlla laal ko maintenant citoyen la amoon naa mouvement boo xam ne dem naa benn mandat gagné deuxième mandat gagné saa ma nekk si parti bi may dem premier en 2009 nekkuma si parti bi may gagné en 2014 nekkuma si parti maintenant man maa choisir man ak ñi ma àndal ñu xool gis ni Macky Sall leader la benn mooy président de la république il est en train de poser des actes ñu ni dañuy ànd ak moom et sans contrepartie amul lu ñu ko laaj amul benn condition bu ñu ko jox parce que Sénégal dañoo am suñu gis-gis am suñu xalaat nun nag ay gor lañu dañu takk buum suñu baat jox nit fu mu neex diri ko donc si gàttal daal mooy résultat yi am bett bettul kenn te départ la rek parce que dama ne woon man si assemblée générale ba ni xëy na sax référendum bi dana xaw a takk suuf tuuti mais en 2017 si lay xamee dëgg ni nit ñi bàyyi nan ko et en principe en 2019 warul dem élection parce que moo waxoon bés bu ñàkkee département Thiès day bàyyi politique mais man jàpp naa yii du politique consultation la woon concerné wu ko comme ni ma bañ a concerné parce que aujourd'hui quand j'ai perdu pour d'une voix c'est parce que c'était des élections yoo xam ne ça ne nous concerne pas en réalité benn voix lan ma gagné mais mais élections yu ñu concerné ñoom ñi ma seqal euh, mbir mi xam na ni mënuñu ma gagné mais en fait li ma mën a bëgg a yëgal daal waa kees di ko yëgal Sénégal mooy Idriss Seck moom en 2017 dana dem retraite parce que nit ñi du moyu nañ ko nit ñi àndatu noonu moom te incha allah rabi loola man waxoon naa ni naa si liggéey te naa continuer di liggéey si loolu.